silence su président de la république ginnaaw bi conseil constitutionnel jëlee ndogal annulé décret bii doon reporter élection yi. ñu yónnee ko tey benn bataaxal ngir mu jàpp benn date pour ñu mën a amal élection yi. bi ñu càmbaree nag le 3 mars 2024 lañ gis ne moom dong mooy fi date boo xam ne buñ ci defee élection mën nañoo def premier tour def deuxième tour président joxe léegi le 2 avril. moo tax loolu lañ ko doon fàttali na ko jot na sëkk mu jël date. organisation yi bokk aar suñu élection jàpp ni bu weesoo 3 bépp date bi ñu jël du dëppoo ak li constitution waxas ndax 3 mars donc képp moom la ñu mën a def élection yi avant le 2 avril de sorte que mu respecté waale li nga xamante ne mooy calendrier bi ñu fi def. jàpp nañ na bu ñu ci organiser euh, élection yi moom képp cundum la ñu mën a def ba mu mën a dem le 2 avril ci jàmm et ak salaam. ci semaine bi ñu jëm ñu jàpp ni dinañu amal ay actions yu bëri ngir wéyal seeni xeex. ñu war a commencer. ce qu'on appelle des veillées nocturnes dans les universités dañuy préparer li ñu naan samedi ci même heure bi mais bii dafay nekk rassemblement beneen bi mooy dimanche bi dimanche bi mooy le 25 et comme dañu ko xañ ku nekk ñu wax citoyen bu nekk mu delluwaat ci ci lieu de vote fa mu daan voter pour def geste bi ah symboliser que ni lii kat dama ko war a def mais dan ma ko xaj aar suñu élection di am kontante ginnaaw bi ñu amalee seeni manifestation bi weesu ci jàmm